mbokk yi jërë ngeen jëf ci euh, teewlu bi niñ koy defee ay bés bu nekk fii ci almaktum TV New York seen mbokk El Hadj Malick ñu dellu siwaat tey ci juróom-ñetteeli numéro jotaayu immigré euh, ñuy wéyal ba tey di xuus ci mbirum immigration immigration moo nekk daanaka li gën a euh, nekk priorité fii ci biir réew mi ci njeexitalu at mi dëgg la guerre wu euh, diggante Israël ak Palestine rawatina ñawte fi nga xamné Israël ñu koy def biir Palestine Nek na la une de l'actualité fini, mais ci sondage yi nga xamné mo moo génn jëm ci walu élection yi ñi en 2024 immigration mo nek en deuxième position bu weesoo inflation mooy yokuté bi nga xamné prix yokku na ko ci biir réew mi fini donc euh, buñ gannaaw buñu Israël Palestine ci lu euh li ñi li yéenekaay yi joxe ci li fa li Israël ray bi yëf yi commencé ak légui ëpp na mat na presque trente mille personnes euh, li yàqu kenn mënu ko xayma euh, américain yi ci ay bës bi wessu résolution bi nga xamné ñi ngi ko don ci conseil de sécurité voté wuñu ko veto wuñu ko comme niñ defone benen bi def nañu abstention mais li ci doy waar li extraordinaire moy résolution euh amul langage oui ou ngir ñu dakkal xex bi donc mel na ni gannaaw bi nga xamé né le secrétaire à la défense Lloyd Austin ak ki nga xamné moy national security adviser bu président Biden dem nañu fofu ci Israël téréwul li muy niru moy américains yi jox nañu sen feu vert ñu ngi wéyal seen soutien Israël continue rey yooyu ak ñaawteef yooyu nga xam ne ñu ngi koy def dans la bande de Gaza tey ci xibaar yi mujj génn ci ay yéenekaay yépp li mu wone mooy euh, lu tolloog ñaar fukki nit rey nañ leen ci na serait-ce que bu nekk ci li ñuy tuddee Rafa crossing mooy diggante Égypte ak Gaza fi nga xamee ne poste frontalier la bokkut ak yeneen yi euh, Eh, nit ñi nga xam ne ni faat lañ leen ci yeneen i eh, parti yi nga xam ne nii moo nekk ci biir Gaza donc loolu lu lëmbee àddina bi la li extraordinaire ak mooy eh, ni ñu koy tënkee ay bés bu nekk rey yooyu ngeen gis ak yàquteeg ñaawteef yooyu noonu ngànnaay yi fii la jóge financement bi fii la jógee couverture diplomatique bi aussi fii la jógee ci réew mi mooy administration président Biden ak beaucoup de pays européens li changé d'ailleurs mooy réewu Europe yu bëri fu mu ne dellu nañu gannaaw boo jëlee réew mu mel France ba ci réew mu mel Allemagne d'ailleurs ak euh, Espagne ak la Grande-Bretagne ñooñu sax wax nañu nañu dakkal xeex bi même bu dee li ñuy tuddee cessez-le-feu humanitaire nañu ko dakkal pour le moment jublu ci jéem a dimbale ñi soxla ndimbal ci réew ma ñëpp la daanaka euh,

Israël bi yëf yi tàmbali bu ngeen ko fàttalikoo li ñu waxoon ñetti objectif lañu am mooy faagaagal complètement Hamas ci biir Gaza libérer ñi nga xam ne otage lañu euh, jéem a sax yokk leneen lu ñuy tuddee déradicaliser mooy continuer di noot ñi nga xam ne la société palestinienne foofu sax ci Gaza mais ci la ci ci ci ci ci euh, la Cisjordanie yeneen dëkk yëpp yaa xam Ramallah la Naplouse yaa xam Hébron euh, fépp foo xam ne dëkk la bu bokk ci li nga xam ne ni mooy euh, la mooy la Cisjordanie donc loolu ñetti objectif yooyu mel na ni benn sottiwu ci gannaaw rey gi ak yàq bi yàq les infrastructures rey lu tolloog 30 000 ay jigéen ak i xale terewul objectif yooyu atteindre wuñ ko mooy benn otage libéré wuñ ko par force israéliens yi contrôlé wuñ toute la band de Gaza euh, ñu ngi continuer di am ay perte ci seen i côté soldats ñoo xam ne ñu ngi leen di faat ba ci ay bés bi li faatu ëpp na fukki soldats euh, diggante démb ak tey li faatu mat na pratiquement juróom-ñaari soldats kon euh, terewul yi Hamas continuer di attaqué di continuer di tirer ay roquettes yiy jógee foofu ci Gaza jëm ci ba ci Tel Aviv nga xam ne mooy la capital israélienne Euh, mel na ni objectif bi nga xam ont ni la Benjamin Netanyahu ak gouvernement fixé wu dara sotteegu ci rey ga nag mu continuer yàqu baa continuer ci Amérique ndax États-Unis ni ma ko faral di waxee mooy ñooy joxe ngànnaay ñooy joxe xaalis bi ñooy joxe it li ñuy tuddee euh, diplomatique cover mooy couverture diplomatique bi ba amul benn résolution bu jógee ci conseil de sécurité boo xam dana mën jàll fofu ci Nations Unies donc lolu ci teunk la mais li nga xam ne surtout mo saxal réew mi te boo deful ndank mo nar indil problème bu mag président bi ba boo deful ndank mu yem ci ben mandat moy walu immigration immigration euh waxna ko légui américains yi boo leen laajee ci sondage yi fi jaar pool yi def yëpp dañ len di laaj lan moy sen major topics lan mo len gëna concerner lan lañu ñu ëpp lu ñuy ci élection yi ñëw immigration moy number two issue moy deuxième point bi len gëna intéressé bu weesoo inflation ci ay bës bi amna caravane bu mag mag bu jógee Amérique centrale di euh, Associated Press euh, agence de presse bobu ñu ko xeyma ci douze mille personnes amna yenen agence yu ne dana tollu ci cinq mille Amérique centrale li ëpp ci ñoom di ay cubain ay haïtiens manam réewu Cuba réewu Haïti ay Guatemala Salvador ak Venezuela caravane boobu ñu ngi ba ci euh, début de semaine bi ñu ngi nekk à peu près thousands of miles mooy peut-être ay 1200 voire 1300 kilomètres ci southwest border la frontière sud-est sud-ouest des États-Unis donc war a jaar Mexico ñu ngi nekkoon ci état boo xam ne ni bu ñu càppa cuula jëm si ci frontière bi 12000 lañ wax mais ci xibaar yi mu génn euh, mel na ni nombre bi wàññeeku na mais terewul ba léegi c'est des milliers de personnes yo xamné ñu ngi ñëw lolu bima amé nak ki nga xamné ni moy président bi joxé na directive bo xamné ni le secrétaire d'état Anthony Blinken and ak ki nga xamné moy Homeland Security secrétaire Alejandro Mayorkas ak ki nga xamné ni moy conseiller Homeland Security bu président bi ñu koy wax Sherwood Randall ñooñu dem nañu fofu ci Mexico City dajeeg le président mexicain di président Obrador pour fexé eh, pratiquement américain yi nek ci eh, pression bu mag jëmale ci Mexico nañu freiner li nga xamné ni flux migratoire la bu jógee ci réew yooyu malim jëm ci États-Unis té di jaré Mexico évidemment eh, voyage diplomatique bobu noonu li président Mexico tontu moy li phénomène bo xamné la du barrière mo koy arrêter wala ay mur ñu tabax wala ay barbelé wala di yokku ay personnel euh, police des frontières muy CBP Custom Border Patrol li koy saafara bokk na ci solution ñooñu di mabbe jóge ci réew yooyu jëm ci Fini, Amérique taxawal fu ay politique de développement yu yaatu bokk na ci sax teggi li nga xamné ni moy embargo daan bi nga xamné ñu ko teg ci Cuba depuis 1962 ba légui lolu mom le président Mexico tontu évidemment nee na Mexique dana def lu mu man ngir indi li ñuy tuddee coopération diggante ak ñi nga xam ne nii ñooy les États-Unis ci flux migratoire boobu noonu. am na d'ailleurs ay postes frontalières yoo xam ne nii dañu leen shut down complètement boo demee dëkk bu ñuy wax Lakewood nekk ci Arizona foofu poste frontière bi shut nañ ko down parce que simplement euh, amuñu enough personnel à suffisamment de personnel ci police des frontières bi pour process ñi nga xam ne ñu ngi ñëw am na dëkk boo xam ne nii ca boori Texas bu ñuy wax euh, euh, danaa dellu soit ci turu dëkk bi léegi nee nañu li fa nekk de l' autre côté Rio Grande mooy fleuve bi nga xam ne moo séparé Mexico ak Amérique te jaaree Texas la nekk ci beneen côté bi am nañu koy xayma ci des dizaines de des euh, de de nga de milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi xaar pour bëtt frontière bi pour ñëw li waral loolu nag du dara mooy loi réew mi daanaka noonu la tëddee mooy unless que nous changer euh, li nga xamné ne ni euh policy politique migratoire bi ñi di présenter à la police des frontières demander asile politique ñu war leen jël process leen teg leen ci système maintenant li extraordinaire euh dem na ba nous rek euh, comme rew yooyu ñu wax mais deug la ñoo ci nationalité Amérique centrale les pays de l'Amérique centrale mais bari na yeneen dëkk ci ay bés bi gis ngeen avion boo xam ne Inde la jógee daal di wàcc en France dans le sud-est du pays les autorités françaises avion bi bi mu defee refueling war a décoller ñu saytu avar appareil bi saytu équipage bi gis ne ñooñu ay indien lañ woon yu jógee foofu te réewu Inde pour jëm Nicaragua pour jëm a rallier fii nga xam ne nii mooy États-Unis donc du katul rek les pays de l'Amérique centrale am na ay africains certes am na d'autres nationalités amna ay ay ñu dëkk ci ay pays asiatiques amna même ay ay de nationalité chinoise et beaucoup d'autres pays donc euh, li maintenant euh, situation bi mu jur moy ni nga xamee non la flux bi dem ne ak ñi nga xamné ñoy dugg ci système bi dem na ba à l'intérieur du pays ci biir ak ci biti système bi attanatul lolu maintenant solution bi américain yi di wut mooy def pression ci Mexico ba ñom ñu freiner ñi nga xamné ni ñoom ñooy dugg si dëgg la bi fi Donald Trump nekkee système boobu jotoon na fi am mais loolu dafa tombé woon ak période bi nga période bi nga xam ne moom la ñuy wax Covid 19 mooy feebar euh, pandémie bi amoon ci jamono jooju ñu def lu ñuy tuddee Title 42 mooy loi bi ñu changé ko changé régulation yi ne comme que pandémie am na euh, mun nañ invoquer lu ñuy tuddee ay mesures de euh, d'état d'urgence sécurité jëm ci wàllu sanitaire wàllu care ba ñooñu duñu dugg si et d' title 42 boobu bi ñu ko teggee yàggul mooy bokk na ci li ñenn ñi wax moo indi search boobu Biden donc ñaari problème la am bi ci jiitu wax naa ko léegi mooy élection yi ñu jëm ak bu ñu laajee yi ni ñu immigration dëgg la mu nekk priorité ci ñoom euh, téeméer boo jël hamne ci am lim bu takk boo xam ne nañu gannaaw wàllu économie bi affaireu immigration bi euh, bokk na ci seen priorité beneen bi mooy dafa euh, request laaj lu tolloog 109 milliards de dollars li ñuy tuddee supplemental bill je pense que wax naa ko ci programme bi ay bés bi weesu comme que moom mënul dépenser li mu man rek mooy laaj congrès bi moo am lu ñuy tuddee appropriation power congrès bi moo am autorisation pour joxe xaalis pour autoriser dépense budgétaire congrès bi et surtout sénat bi parce que congrès bi ñaari chambre la am na la chambre des représentants nous avons 435 membres am sénat bi ñu 100 membres Pour lu jëm loi de finances, nous avons ko voté bu yegsee ci sénat bi du majorité simple il faut que nous la la majorité des deux tiers donc il faut au moins 60 sénateurs et que amul 60 sénateurs par thème 50 la am euh, ku 50 ci ñaari parti maintenant bu Sénat bi 50-50, 50-50. cinquante bu ñuy vice président bi fay am lu ñuy autorisation pour voter pour break li ñuy de tie break mën break la nga xamné ni moy égalité bi mais lepp lu jëm ci loi de finances lepp lu jëm ci voter budget da ngay soxla 60 voix les deux tiers du Sénat amul voix bu amuko euh, d'ailleurs ci bir house bi ci 435 membres républicains yi déjà ñoy le house bi loi ba mënul jall ci house bi parce que républicains yi contrôler la chambre amul les deux tiers ci sénat bi donc il est obligé mu def compromis lolo waral d'ailleurs républicains yi tek ci table bi ay points yo xamné ni pour 109 milliards de dollars yoy ñu voté ko ñu décaissé ko du loi de finance bi parce que euh, loi de finance bi c'est plus de à peu près li ko manqué mu mat 4000 milliards tuuti la mooy 3.6 trillion dollars 3600 milliards de dollars mais bi, euh, rallongement budgétaire rek la ñuy laaj loo xam ne jëm na ci en urgence ñu financer Israël 14 milliards de dollars financer Ukraine li ci des ñu financer li ñuy tuddee les di Indo-Pacifique mooy ay Taïwan ak yeneen dëkk yi nga xam ne ni Philippines euh, loolu aussi di beneen mbir moo xam ne danañ ci dellu si euh, ci ay bés yi peut-être waxtaanee ko mooy mbir moo xam ne ni Amérique ubbi na ko mooy guerrewul directement ak yenn réew yi mais la guerre la par proxy mu ngi guerre ak Russie jaaree ko ci Ukraine euh, di guerre ak euh, les Palestiniens avec euh, l'Iran ak d'autres pays jaarale ko par Israël mais aussi avec la Chine bu yëf yi soppeekuwul jaarale ko ci Taïwan ak des pays comme les Philippines Donc, les donc républicains yi nee nañu bobu du génn l'udul, dul mu am ay changement ci frontière d'ailleurs li ñuy utiliser mooy nee broken border mooy système bi yàqu na yàqu boo et eh, président Biden ci boppam reconnaître na loolu nee nañu nañu dellu ci frontière bi Sangé li nga xam ne procédure number one bu mu nekkati ku ñu process la bàyyi la nga dugg nee nañu négocié ngi chiffre bo xam ne bu yeggee 3000 personnes yo xam ne li ñuy illegal crossing loolu moy proposition républicain yi démocrate yi nañ ko def 5000 parce que instant bi li jall ci frontière bi xayma nañ ko ci 10 000 illegal crossing donc 10 000 at least 10 000 personnes danañ cross danañu jéggi frontière bi de manière illégale les républicains proposition bi bu ñu ci 3 000 personnes jall frontière bi ñu tej frontière bi shut down lolu moy number one. number two non seulement ñu toj ko mais ñu def lu ñu tuddee expedite removal moy ñi dès que ñu yegg ci chiffre nous nañu encouragé police des frontières bi CBP ñuy expulser automatiquement ñuy dugg ci expulser leen yaa xam Mexico la walla beneen réew bi nga xam ne moom lañ jógee woon leneen li mooy bu ñu nañu dellu am na sax d'ailleurs proposition bu gën a radicale loolu boo xam ne ki nga xam ne moo jiite woon la police des frontières proposition bi mu def mooy nañu bàyyi ñii ñëw ñi leen di process ñuy dugg ci réew bi nañu delloo ci benn politique de détention boo xam ne ni ku ñëw ñu yóbbu la détention administrative loolu euh, ñu ngi koy proposé yi may wax peut-être après le 31 décembre bu ñu duggee ci début d'année bi lañ koy xam leneen li nga xam ne proposition bu républicain yi def nañu accélérer les procédures d'expulsion képp ku ñëw nga am sa asylum case bu ñu ko dinaayee nañu la expulser automatiquement maintenant lii mooy proposition yi nga xam ne c'est des propositions très radicales yoo xam ne moom lañ tegee ci table Biden d'accord na def ay concession loolu il l'a fait problème bi mu am mooy ci biir partem am na ñoo xam ne nanguwuñu li nga xam ne proposition bi rawatina groupe parlementaire bu ñuy tuddee the Hispanic Congressional Caucus mooy genre groupe parlementaire buy représenté ñi nga xam ne la minorité hispanique kenn boolewu leen ci waxtaan wi mais ànduñu ci joxoñ baaraam bu ñuy joxoñ baaraam les immigrés te jàpp nañ ne immigrés yi lañ wax mais surtout ñi nga xam ne ñooy la minorité hispanique ñooñu la ñu bëgg a jël yëf yi teg ko seen kaw donc kenn boolewu leen ci waxtaan wi nee nañu c'est sûr que duñu ko voté maintenant Biden mënul wéeru rek ci républicain yi pour jàllale loolu dafay soxla partem hispanique Congressional Caucus bi ma wax ne anduñu ci loolu ñi nga xam ne aussi beneen groupe parlementaire bu ñuy wax de progressive mooy les progressistes yi nekk à l'intérieur du parti démocrate c'est l'extrême gauche du parti anduñu ci loolu naka la nar a balancer loolu pression bi nek son propre parti ak ñi nga xamné ñi les républicains li tax dynamique bi changé nak que nous mo aussi lu am solo la moy dañu jëm année électorale sondage yi fi jaar yëpp le dañu jox Biden Biden perdant euh, dëkk yi nga xam parce que élection Amérique damay faral di wax ne du élection ci benn état parce que 50 états, la donc dañuy organiser 50 élections euh, du rek gagner le vote populaire nga faut... le le mën nit ñi mën nañ la voter nga vote populaire, parce que collège électoral bi motax Et état gagner, il nga am nombre ci collège électoral bi collège électoral bi ñu ngi koy nat ci euh, nombre de ñi nga xam ñoo nekk ci li de Il congrès bi moy 435 membres yi ci house bi la chambre des représentants ak les 100 sénateurs yi nekk ci sénat bi pour calculer 535 donc 50 états yëpp bo calculer le collège électoral 535 donc euh, candidat bu am 270 ci 535 yoy moom gagner les élections loolu mo waral nga gis euh du ci état ngay campagne mais yaangi campagne ci état yi nga xamné ne buñu bu voter la nga dem que waral am lu ñuy battleground state les états yi nga xamné ñoy décider élection yi état yoyu sondage yi fi jaar yeb Donald Trump da fay gagner Joe Biden bu élection yi nekkoon suba day gagner élection yoyu da koy gagné ci Michigan da koy gagné Pennsylvania da koy gagné pratiquement Wisconsin gagner ko ci euh, yeneen état yi nga xam ne nii donc euh, c'est des états euh, yoo xam ne nii ku ko gagné ci battleground state yooyu noonu yow yaay gagné Arizona da ngay yow yaay gagné bu boobaa élection présidentielle bi dara waralu ko dëgg la moy situation économique amna ñu ne guerre bi am diggante Hamas ak euh, euh, diggante Israël ak palestiniens yi euh, dana ci jouer rôle mais surtout aussi politique migratoire bobu noonu donc lolo waral le président nango def concession yi nga xam ne ni lim ko maintenant naka la lolu mën a peut-être que après ci début d'année bu bees bi dañ ci xam dara mais toujours est-il que xaalis bii muy yootu moom ci boppam xam na ne du ci jot lu dul mu nangu dellu gannaaw ci wàllu politique et immigration boobu noonu euh, caravane bii nga xam ne nii mu ngi nekk toll ci am na ñu ne 12000 am na ñu ne ëpp na ko ci réew yooyu ma lim nar a à la frontière sud du pays perception boobu lay def ci tubaab yi te tubaab yi ñu ëpp ci parti républicain bi dañuy jàpp ne kon administration bi soppi na doxalini immigration réew mi def na lu ñuy open border open border policy mooy politique ouverture des frontières ubbi nañ frontière bi ku ñëw dugal perception boobu la ñuy def ci euh, euh, yenn votants yi surtout ñi nga xam ne ay conservateurs lañ looloo waral d'ailleurs Donald Trump euh, argument boobu lay utiliser de sorte que moo continuer di nekk en pole position ci li nga xam ne ni mooy sondage yi dans le parti républicain donc ñi ko topp ci gannaawam li mu leen ëpp li leen rawee ëpp na 20 points donc fii yëf yi tollu tey c'est absolument sûr de plus en plus ñi am précision yaqin bu wóor boo xam ne Donald Trump moo nar a nekk le candidat républicain dëgg la am na ay problème yu mag a mag a mag mu ngeeg ñeenti cases yoo xam ne ni ñoo tegu ci kawam am na ñaari inculpation au niveau fédéral am na inculpation dans l'état de Georgia am na inculpation fii l'état de New York naka lay def moom it ba rëcc ci kees yooyu ba du ci am benn boo xam dana ko yóbbu kaso loolu mooy challenge bu mag bi mais ci biir parti républicain bi c'est sûr et certain que moo nar a gagné li nga xam ne les primaires donc ça se précise de plus en plus que moo nar a le candidat du parti républicain ça se précise de plus en plus bu soppiku amul ak chiffres yi Biden am boo deful ndànk Biden dana nekk président seul mandat et Donald Trump pourrait être le prochain président des États-Unis loolu lu wóor la maintenant damay faral di wax ne Donald Trump xam nañu ko jaar na fi def na fi ñeenti at xam nañu politique migratoire bi mu def fi nii ci wàllu immigration bi mu toogee li mu njëkk a def mooy lim ay réew ne réew yi seen majorité ay jullit lañu duñ dugg ci réew mi loolu mooy la première chose bi mu njëkk def premier décret bi mu signé li ñuy tuddee executive order loolu la njëkk a signé loolu ñi fi nekkoon gis nañu kawo bi mu créé ci biir réew mi ci aéroport yi indi jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu la ko wax parce que non seulement borom visa yi mais borom green card holder yi nga xam ne ni ñu ngi euh, cosaanu ci réew yooyu ñii am ay problème dans d' autres aéroports ci seeni dëkk en Europe et cetera li mu euh, li mu ci teg bokk na ci li ñuy tuddee work euh, place enforcement mooy. jël ay agents dugal leen ci biir réew mi li ñu tuddee ICE mooy Immigration Customs Enforcement euh, jàpp ay nit ci seen i liggéeyukaay déporté leen ñi doon ñëw ci frontière bi li la nga gis famille yu ñëw mu def lu ñu tuddee family separation jël ay xale séparé leen ak seen i parents loolu musiba bi mu jur ba fii ñuy wax tey am na ci ay litigation ay plainte yoo xam ne porté nañ ko gouvernement fédéral bi am na ndàmpaay yu ci fay am na ci ñoo xam ne d'ailleurs sax ci lañ leen jox ay kayit ba fii ñuy wax tey am na ci xale yoo xam ne ni gisuñu seen i parents loolu def na ko fii nii ak nag li ñu tuddee massive deportation mooy li ñu fi déporté ci ay nit ci ñeenti at yooyu kenn mënul wax nu mu toll. boole ci def li ñuy tuddee tidal 42 shutdown border bi kenn doonu fi da dugg période boobu tombé Covid bi donc euh, def na déclaration ci euh, weer yi ci gannaaw wane ne buy dellusee politique bi bokk na ci li nga xam ne ni moom la nar a appliqué donc immigration bi naka jek division la diggante républicain démocrate mais cette fois-ci li changé ci yefi moy mooy euh, rek républicain démocrate à l'intérieur du parti démocrate amna ci euh, ño xamné ni ils élèvent la voix lu melni ni boo maire New York euh, african american la nit ku ñuul la nga jël maire Chicago nit ku ñuul la nga jël maire Denver Colorado ñooñu ñep li ñu jàpp li gouvernement fédéral bi waron def ci yefi defuko New York City fini les li qui ñëw ci ay immigré danañu ko xayma ci ay 140 000 voire 150 000 li ci ëpp ci ñoom ay vénézuéliens parce que bu ñu waxee immigré li may wax toujours nit ñi ñu bàyyi xel mooy bu ne junney immigré ngi ñëw jàppal ne benn africain moo ci nekk wala ñaar li ci ëpp ci ñoom il vient de l'Amérique centrale mooy Venezuela Cuba Haïti ay Nicaragua ay Salvador Guatemala Ecuador ñooñu pratiquement dana am quelques nationalités asiatiques africaines mais li ëpp immigration Amérique bu ñu koy wax pays latino yi moo tax ñu wax d'ailleurs ci 11 millions de personnes yi fi nekk def fi ay ati ati at amuñu kayit les trois quarts ci réew yooyu la ñu jógee donc benn benn nga ciy gis d'autres nationalités am na ay ay irlandais ay tubaab yu weex tal yu fi nekk ay français yoo xam ne ni <laughs> yàgg nañ fi amuñu papier mais li ëpp ci dëkk yooyu la ñuy jógee donc. Euh, naka jekk débat bi loolu daan nekk républicain démocrate li position wu parti démocrate bi ci wàllu immigration toujours mooy balaa ngay tëral ay mesures enforcement yoo xam ne ni mesure radicale à la frontière fexel ba régler problème wu à l'intérieur du pays ñi ñi identifier ñu nekk fi nañu leen def génne leen ci lëndëm yi ñu nekk teg leen ci yoon régulariser leen boo leen régulariser nga jéem a indi yeneen mesure d' enforcement donc te ñi nga xam ne aussi dañu dafa am lu leen yoon warloo mooy loi bee immigration nationalité acte à la frontière décider def demande asile changer règlement bi ndax la loi bi prévoir à la frontière Présentez-vous. ne asile ñu process la nga def demande d'asile. dem devant le juge pour défendre ce case tant que yaa ngi ci yoon boobu noonu kenn wul sa caisse ken amul droit taxañ taxale rek pour expulser la donc Biden il faut am lu mu changer il faut am lu mu teg ci loxo ñi nga xamné ni ñoy le parti euh, euh, le parti républicain pour mën jot ci 109 milliards de dollars yoy nga xamné ne lenn li wax ko Israël la jëm lenn ñi jëm Ukraine lenn li jëm ci Taïwan et d'autres euh, d'autres pays asiatiques maintenant naka lay réussir loolu nga xamné ni moy négociation son propre parti mën nañ ko baña soutenir ci loolu mais changement bi am cette fois-ci moy à l'intérieur du parti démocrate nga xamné c'est un parti pro-immigré amna na lu ñuy tuddee ay voix dissidentes yo xamné ni amna ñu jogné système bi ni mu tëddee ni ak ni mu démé nañu ko nañu ko soppi rien que New York City New York City euh, maire bi ci boppam ci semaine bi amna changement yu mu dugal ñi daan ci frontière bi ñi leen bus New York wax Colorado nga Denver ak Denver l'état de Colorado ak Chicago dans l'état de Illinois li maire wax def ay genre arrêté municipal executive order ñu compagnie bus di Texas wala dans état yi di indi immigré yi à l'avance ñaata immigré ñu bus

New York ak yeneen dëkk yi mooy képp ku ñëw file asylum mënuloo am automatiquement autorisation de travail mais boo filee asylum case euh, man nga war nga da nga war a xaar 6 mois 6 mois yooyu mooy li ñuy statutory waiting période boo xam ne boo ci yeggee ci ngay door a éligible pour work permit donc état yi may wax euh, dëkk yi li ñu waxoon gouvernement fédéral bi mooy nañu accélérer procédure procédure yi nga xam ne ci la ñuy jaar pour délivrer les work permit looloo waral nga gis ñu bëri ci demandeur d'asile yi seeni work autorisation génnul amuñu autorisation de travail moo waral jafe-jafe yooyu noonu te New York ci boppam lim doon def mooy ku ñëw ñu héberger la loolu aussi changé nañ ko ndax loi bee waxoon loolu léegi nee nañu amatuñu capacité boobu noonu ñi ñu héberger ci benn période 30 jours 60 jours bu ko defee ñu daal di la libérer nga dem wuti benen mbir bo xamné ni euh, ci nga mëna japp donc je pense que immigration bi euh, at mi ci des bëreetul c' C'est sûr que dès retour janvier congrès dafa nekk lu ñuy tuddee recess ils sont en vacances pour les vacances de fin d'année dès ñu dellu ci début janvier la négociation yi continue donc dès début janvier danañu gis ay soppeku à la frontière waxna fi ñetti kilifa yo xamné ni nii nañ ci réew mi daal di euh, tukki dem fofu nga xamné ni moy Mexico dara waralu ko lu japp jàpp nañ ne yëf yi c'est devenu lu ñuy tuddee ci anglais insustainable yëf yi mënatul wéy ni nga xam ne noonu lay demee à la frontière euh, capacité ressources yi permettre ko ñu def pression ci Mexico ñetti kilifa yooyu bokk na ci Anthony Blinken euh, kilifa la ci réew mi c'est le secrétaire d'État pratiquement boo ne le président le vice-président boo ci tegee Speaker of the House c'est la quatrième personnalité de l'État fédéral Anthony Blinken teg ci ki nga xam ne nii man nga def mooy du ministre de l'Intérieur, Alejandro Mayor, qui est le secrétaire homeland security avec le conseiller de sécurité intérieure de Biden donc ñii c' est de hautes personnalités dem nañu Mexico daje kilifa yooyu noonu ne Mexico na commencé freiner flux bi soit à l'intérieur du pays wala dès que ñu jógee réew yi nga xam ne moo bokk ak Mexico frontière Mexico dana def lu mu man mais Mexico ci boppam amul moyens certainement li États-Unis nar a def mooy jox leen xaalis jéem a assister ci eh, naka la ñuy def ba eh, eh, changement am à ce niveau donc danañu constater ne ñun ñëpp dès le début de l' année danañu gis changement mooy ni mbokk yi doon ñëwee jóge ci réew yooyu dugg si bi ça ne va ça ne va pas être facile donc dana dugg bi dana commencé jafe da nga commencé gis expulsion yu bëri mooy ñii ñëw comme ñi daan def ñëpp ñëw bu yeggee ci benn chiffre ñu expulser leen vers Mexico wala yeneen dëkk yi et certainement pour joxe beneen signal mën nga gis ay workplace enforcement wàccee ay agent wu ICE immigration customs enforcement contrôlé ci yenn liggéeyukaay yi ñi amul papier mais surtout euh, mën nañu gis aussi euh, accélération ci expulsion yi ci ñi nga xam ne seen caisse def nañ adjudication bi ci ci immigration court devant le juge de l'immigration et que caisse yooyu ñu dinaay ko donc yii ay mbir la yoo xam ni danañ ci bàyyi xel suivre de très près dès le début de janvier 2024 donc bii mooy euh, suñu dernier programme ci année 2023 bi euh, danañu ko euh, continuer donc de suivre de très près cette question de l'immigration danañu dellu siwaat certainement ci yeneen i programme danañ commencer couvrir Sénégal bu ñu duggee ci année 2024 bi Sénégal mu ngi jëm ci élection ñu ngi nëgandeku une décision de la Cour suprême ci radiation ou... Ousmane Sonko ci liste électorale yi xam nga na ñaari décision jaar na fi benn bu tribunal départemental bu Ziguinchor benen bu tribunal grande instance bu Dakar état bi ay avocat am def lu ñuy tuddee pourvoi en cassation naka la loolu yëpp ci droit positif sénégalais ci code électoral bi naka la ko naka la ko jàngatee danañ ci dellu siwaat dès janvier bi ndax Sénégal aussi jëm ci élection présidentielle ñu saytu ko bu baax euh, expliquer ko par rapport ak ni ko Guissé gisee ak droit constitutionnel donc lii mooy li nga xam ne ni moom lañ leen indi loon tey fii ci Al Maktoum TV New York seen mbokk El Hadj Malick Tall ci machine bi Cheikh Ahmed Tidiane Dieng ñu jox leen daje ba beneen yoon.